Baye Diop ñëw na indil leen lu bees seetaan leen ko Baye Diop ñëw na indil na leen lu bees seetaan leen ko ay waay Baye Diop ñëw na indil na leen lu bees seetaan leen ko na leen lu bees seetaan leen ko ay waay Baye Diop ñëw ci weeru koor seetaan leen ko Baye Diop ñëw na xanaa koor gi rek koo jàpp salaamaaleykum salaamaaleykum kooku ah waay waay delloo fasam loxo delloo delloo delloo fasam loxo ah waay waay yee yee ah waaw waaw waaye nag waaw kat damaa damaa sonn sonn gisuma la. maa dangaa sonn xanaa gis nga jéeg muy dem. ma ma seen naa ko alors fii toog. dee jàll te nañ jàll ci biir. dafa daa génn mu dugg. daa ba ko gis. ah waay. saa yan ci jàmm kontaan naa nag. ah nii nga def. as nga moustache sa loxo yi nooy na nag. yow doo sàcc soo de te moustache yii. booy sàcc soobu lay feeñal. oui ma te te teemaa teemaa teg ci bopp bi. ay waay Samba. ay waay Diop. nga di. yéen sa jabar ji toppatoo. moom moo yow daa xam dara. ki mel nag moom moo. xam nga moom la xam nga lan la xama. laali baaram bi fokki ba xam naa ni ñàkk fay de dara dara neexut. ay waay Diop waay. yow xanaa. ah ah boobu baax na boobu delloo delloo fa delloo fa sa loxo foofu waaw. ah ah boobu baax na. waaw. ay waay. ah. no doo dee de delloo la fi bu dugal fi bu sew bi bu sew bi baaxam bu sew moom moo ci nekk. waaw. damay moccal de. moccal. nijaay nii la ñuy moccale. sama bàjjen nee na woon su ma ñëwee naa nga bàyyi doxu timis. eh eh amul sa benn bàjjen wax la dara loolu ay fen la. yow may wax nga ko dugal sa baaraam bi loolu mocc mocc ana mocc dugal sa baaraam bi ana mocc ana sa baaraam gis nga ni yaay xam nga defoon nga fi benn heure génn su douche ba yor sa tane du ko naan ma gis la ah ma bàyyi noonu mu sedd may wax nga ñëw defaat beneen action may wax nga indi fa ci biir kër gi maa nga dégg fii laa toll dégg ko nga naan ko ay sama sama lumpaañ mun dox ko baaraam ah eh. lijjantiwuma ko ma sama lumpaañ laay lijjanti ndax moom moo nekk ci kër gi mooy togg ndogu yi mooy jox ñuy lekk. Eh, yow laa wax mën nga dimbale maa tey sax. ah yaa tey sa sa yumpaañ bi mu doon booram. Ah. sa nijaay du doxaan dañ koy fekk si. Ah. déggoo ma bu ma wokk. Ah. bu ma wokk. xam nga naa déglu ma wax la man seen yoon ba xam nga man duma sañ su jekk takku gërëm. man kay xam naa doo mocc kat man kay xam naa doo mocc man ba nga koy toogee nag na duut nii xam naa ne fenn ak sos ak duul ak la ñu dajale naan damay mocc eh, eh. xam nga suñ problème mu ba tey man yaa ma woo na ma sa jabar dem na marché pour ma ñëw fi. ay ay ñëw naa fi man nag wóor ma wóorloo kilifa gu toll na yow nag ginnaaw yaa mën a toog fii jaboot bi jaa ba weex. Mm-hmm. di ma woo ma na wóor woon na am baraan kër turu ta woor. Ah, ah. man nag maa li ngeen wax eh toogal fii ma wax la sama ñetti dëgg la toogal fii. xam nga da nga ne ponkol magum jëmm nga wax. waaw waaye ponkol magum jëmm kii di paa magum jëmm toog fii weeru koor bu jot ah ngeen war a indi nga xale yi teg leen si yoon yéen ngeen toog fi di cagatu. di yaru saay saay. dugal naa ma dugal si baaraam beeg. yow moom sama lumpaay bu ñëwee fii damay damay xoolal. li jënd na mu ñu mën ngaa naa ko indi sama liggéey. munoo amoo responsable su ko moo su sikki mel nag joosu sa bëri xóor yooyu. na la yow waaw war na la. war na la ngay mën a a ngay mën a a jéem a sànq. gis nga nijaay xoolal wuyu ma fii sa kanam gi sa kanam gi mën na daal la càmmoñ xam nga nijaay am na yoo xamante ni gis nga magum jëmm nga xool sa sikkim bi. ah am na yoo xamante ni yaa ko war a kii bañ. waaw ci ñuy waxtaan xamoo nu demee ni. nijaay man waaw waaw nijaay yow ma laaj la nijaay yow la moo tax nga caga. pardon la moo tax nga nekk waaye xoolal damay tudd la bon loolu sax de yow affaire caga rek. yow caga rek waaw léegi dinaa la neexal dégg nga sa tante bu mu ko yëg dégg nga. Ah. waaw ñaara ngay neexal. kër gi kay fi mu loo bëgg. Ah. moom la ñuy def. ah waaw loo wax ah, léegi moom laay def loolu daal mën a nekk. waaw yaay sa xarit. ah lu ma neex lu ma neex def ci kër gi. waaw waaw. su ma neexee dugg roqot dugg génn ak def yooyu. noonu caat dong nga fi bàyyi caat dong ah. nga fi bàyyi. de eh, caat su ma neexee sax xoolal yaa ma ko wuy ma eh, eh. su ma neexee xoolal tëgg mu ne la xoolal sama ok jeex na. waay bay juub ci xale nga naan dooyul bay des fan lay xewe ee AC Pro foofu lay xewe